sénégalais. ak socialiste yéen a ngi doxal jëm ci vos anciens camarades socialistes parce que euh, aujourd'hui au parti socialiste ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Ali Mané ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoom Abdoulaye Wilane ñoom ñëpp ils ont béni la démarche de Macky la ñoom Gorgui Ciss mais am na ci ñoo xam ne. Euh, sànq maa ngi dégg naan ñu amul solo yaa wax sànq. waxuma amul solo mooy côté. Ah, waaw mooy côté mooy lan. mooy côté mooy mooy xam naa leen. mooy ko tey xam naa leen c'est-à-dire ñoom am nañu ñu ci ñu ciy def dissidence nee nañu euh, ñoom dañoo war a am candidat est-ce que da ngeen jox euh, socialiste yooyu loxo. xam nga ñun bu ñu lancé deux mille dix neuf ba nga gën a président fii ci Fun City dafa ne je lance un appel à la gauche avec comme fondement le projet des assises nationales. Khalifa est un candidat socialiste il sera le candidat de la des socialistes et de la gauche boobaa nag képp ku socialiste dañuy tàllal loxo ku ñu fekk si ñu ànd liggéey mais li ma désolé nag sama mbokk waa PS yooyu mooy que ne man franchement le problème que j'ai mooy mënuñu d'accord ci ku xamagul kan la. c'est-à-dire c'est-à-dire Macky Sall côté de baax na. ku la wax ne ñoom xamuñu kan la. non non xale non attends. ñoom am seen candidat non dama ne xam nga luy problème man d'accord naa ñu ne Macky Sall ni ki laa tànn ñoom ñu xool ndax nañ ci mais kool am na baax na. ma ne cest nekk parti nga yow ma ñëw rek tu as un parti politique légalement constitué nga ne léegi président yow tànnagoo de tànnagoo de mais koo jël rek ñu am nañ ci. mais ci biir koo ah, jël ci biir koo jël ah, ñun ànd ci biir koo jël boobu ñun ànd nañu ci ñoom dafa am ku leen gënal. waaw non amuñ choix ñoom. ñoo non non non am nañ xam nga gars dañ ne Macky sàll koo jël ànd nañu ci. mais ñi ko wax Macky sàll yépp ku ci nekk am na ku la gënal yaa ngi dox guddeeg bëccëg pour que Macky Sall tàll kii la gënal. waaw léegi une question. bu ah. jël bu jëlul sa nag. ah bu jëlul sa waay noo def. kan bu bu jëlul sa waay. buñ jëlul sa waay. Ah. mais nga nga nga nga sàmm sa ngor mbaa nga xam. non noo non non xam nga Mame Boye Diao démb il a eu le courage de dire que ku Macky tànn il posera ses conditions

non entre nous nga xamante ne xool ils n'ont rien à envier aux gens euh, au candidat de la mais mais mais léegi parti yóbbaale dama ne dama ne PS mun na génne au moins trois candidats sérieux non man dëgg laay wax ki nga PS mun na génne trois candidats sérieux qui n'ont rien à envier au candidat de de mais de l'APR. est porté par l'APR depuis 2012. mais léegi li ma désolé amuñu amuñu candidat 2019 amuñu candidat 2024. xam nga lu ma désolé. waaw. Ah. liñ ne président loo def baax na. mais mbër mooy baax na. ils sont souverains. man du ma ma problème. da nga xam lu leen Macky Sall defal ba ñu ba ñoom ñu jël ko teraanga boobu non damay je je. man de du ma ko def en fait damay tooñ naan PS parti yóbbaale parce que dafa am koo bëgg mu ñëw mu mu mer comme ça mu mun a ñëw ñu waxtaan mais bon je je sais que le le PS est un est un est un grand parti mais ils ont raison euh, ils sont dans la logique euh, d'une coalition en tout cas Moussa merci.